maa ngi woon ci Adintine nombre 44 44 Adintine tey foofa imam Thierno mooy imam ratib bu Banjul xam nga Sénégal dafa naqaree waxtaane imam Thierno mooy imam ratib bu Banjul tey foofa la dëkk booba kër baayam la alaaji Aliou Ka maam Maas Ka moo ko alaaji Aliou Ka moo fa dëkk ma nekk fa leer na booba Thierno Ka mii di imam tey mu nga ci Arabie Saoudite taawam mu tuddee ko Xadafi ndax xaritam la woon wax na dama bëgg nit ñi xam ne xam naa li may wax bu baax te xam naa ci ki may wax bu baax muy Serigne Habib radiallahu taala an noonu la nekkee Banjul jël rajo bi maa ngi ubbi sama rajo di déglu kenn nettaliwuma mu ne mu ne jaawara maa ngi lay ñaan nguur jarut lii bakkan yi rot ëpp na nguur jaru ko bàyyil te nga seet noo def ku koy sàmba saañ yow bëgg nguur jarul bakkan yi rot yu toll nii Abdou juuf nag maa ngi lay wax loo ci mën nangu ci def te bu fekkee génnee soldaaru Sénégal yi mooy tax jàmm am génneel soldaaru Sénégal yi dañ fi ñëw pour jàmm am nañ ñëw ndax jàmm am boole ci nag ay dogam mm-hmm. di def la muy def ba yëf yi ne tekk jawar a ñibbisiwaat ku koy sàmba saañak ndaw barakallah eh, Chérif xam naa ni ah. eh, yooyu nga ñu ci alaji Habib mhm. daf mel ne yaa ngi ñu tollale alaji Habib ma nekk ca Gàmbi mhm. eh, mi ñu xam ci Sénégal xam ci Gàmbi mhm. alaji Habib alaji la waaye xam nga rek leer gu mel noonu fu mu nekk rek tabarakallah fu mu wane boppam parce que yàlla yàllaa koy defee noonu ñu bàyyi la tuuti rek nga dallu bu ko defee ñu bàyyi Seyid il ñu tuuti rek tabarakallahu bu ko defee auditeurs yi ñuy topp mën a ñoom itam dalluwaat bu baax ndax waxtaan wi waxtaanu waxtaanu guddi la te yaakaar naa ni ñuy tëdd ci seen lal waxtu wi di eh, dinañ bëgg di dégg waxtaan wi ni muy ni muy doxee nii di ci jël xam-xam waaye itam buñ ci noppee dinañ di dégg ñoom itam ku leen di wayal loo nga xam si dana gën a tooyal seen xol fa tabarakallahu kon sayit ñu bëgg yow itam bëgg yallaahu rabbanaa ilayka tawassalnaa bi xayri bariyati fa yaa hayyu yaa qayyuum yallaahu rabbanaa ilayka tawassalnaa bi xayri bariyati sirsi maa ngi leen falaa budda min shakwaa ilaa llaah حياتي فما لي غير الله جابر كسري وقرا يا باب الخير يا ربي لم يفد كسرفنا وبابك وجهتي شيخ سراج ما اليك من افتخار وفاقة لتغفر لي يا ربي من كل زلتي بدا لي انه ليس ما ربون وبابك الآمي مدت يديتي أما بدا لأنه ليس معرب سوى بابك العامي مدت يديتي إليك بدف وافتقار وفقر لتغفر لي يا ربي من كل زلتي فلما بدا لي أنه ليس معرب سوى بابك العامي مدت يديتي إليك بدف وافتقار وفاقة لتغفر لي يا رب من كل التي من في حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية أنت على محمد فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية وخول المدف خلاص xoolal al muy sët bee muy sëriñ Cheikh Tidiane Sy Maktoum nee na muy Cheikh Siraaji Malik bii nee na taat bi nuuru jamalikal alaamu yaamalu wal xallaaqu wal allaamu sëriñ Cheikh wa abaasi waakal aqu min ziyaqihim wa atatu ayyadu mulkan ayyamu sëriñ Cheikh na fala anta rabbun waayidun bi sifaati wa fi'ali bi shahaadatin tuutaamu wala anta xayru mukawwin wa wa mu'minin tajri lawul akaamu maa kullu shay'in fil awaalimi إلا كما قطت به الأقلام فالشمس والقمر المنير وقيرها wal ardu wal miriq wal ajramu sëriñ sera taate liani muraqabin min nasratin fa kama qada riayatun wa nisaamu bàyyi sëriñ Moustapha Sy ne laakina zaataka laa tura illa kama tandak جلالها الأقلام ما الناس ما الأكوان من ملأ الذي أفلاكما الأرقام سرسان إلى قبار طار طار طار من قطر السماء ومن السماء من الأمور أذام سرسان فعل القانون والعقل الزكي ورأي وتدبير على بارك الله بارك الله ñu ngi lay ndokkeel baax sayit di ndokkeel itam tabarakallah mbooleem julit ñëpp yaakaar naa ne xol yi nañ mhm. xam nga am na foo nga xamante ne si nañuy wax ni boo ko boo ko laalee rek yow yaa laal xol yi mhm. tabarakallahu waaye jëmm yi ñuy waxtaane ñoom ñoo toll noonu mhm. ba tax na booy waxtaane seen dund yaa ngi yëg ni ni nit ñi di bége ni nit ñi di kontaane tabarakallahu te am na xol yoo nga xam ne ku yàlla dina saral sa xol tey ak ëllëg yàlla nañ ci yàlla boole ba tabarakallahu bay di rafet na ñuy faral di gëstu wàllu luxal arabiya sax dañuy gis ni ni mu tëdd rek nga ko waxee mm-hmm. ndax itam jàng bayitu mag ñi dafa am danger bu garaaw bu ci nee mm-hmm. te mooy boo ko yàqee rek mm-hmm. am na indil ay jafe-jafe ci boo ah, gënee boo gënee jëm mag waaye nag boo ko defaree itam noonu la lay terale moom jàng bayitu mag moo dañu jar di bàyyi xel ci maxaarijul xuruf yi ak itam di uh, bañ a topp neexit bi di topp itam lu mu neex neex ngay topp itam ni mu tëra ni ko mag mi tërale parce que xaal bi mu ko woyee rek la moo tax sëriñ Cheikh Tidiane si Maktoum di wax ni mhm. yonent bi boo koy way bul ko way ci sa xaal mais mhm. te loolu yaakaar naa jafe na waykat yu bari mhm. te yëg nañ ne li ngay way mi ngi dugg ci suñu xol yi yàlla na yàlla teral kon sëriñ Ibrahima ay dara ñu wax rek ni ñi ngi waxtaane El Hadj Habib euh, radiyallahu anhu di caatum Cheikh euh, yaakaar naa li nga jot a wax ci première partie bi dañuy sof rek ñëw ci deuxième partie bi nit ñi gën a mën a ubbeeku bu baax ci El Hadj Habib moom mu nga xamante ni euh, toppal nga ñu ko ba mu dem Banjul mm-hmm. ba ci coup d'état boobu doon am ci diggante Jawara mm-hmm. wax nga discours ba position bu mu fa jëloon mm-hmm. te jamono jooju naqare woon a waxe ndax du naqare waxe boo waxee bañ ki mere la waaye sa bakkan nga doon rawale ah, waaye Seydi Hadji euh, Habib moom li ko fekk mooy dafay dafay dafay dafay gis ni doom dafay am solo te itam xam nga dañuy wax ni nitu yàlla dëgg-dëgg tegul kenn ci kanamam ko dul yàlla subhanahu wa moo tax lenn lu ko mën a gaar ca loola bu fekkente ni bu àddoo daje ngërëmal suñu borom rek dina àddu loola moo ko sóoboon ca loola fekkee nga nag yow loola déglu nga discours ba tawit mi ngi la fekkoon biir Banjul mhm. xam naa ñu bàyyi la rek mi nga xamante ne si moo nekk fële ca Banjul ñu koy topp gis nga loolu li ko ko may mag Xaaji Mansour mu ngi nettali bés fekk buñ ko mosaan ziyaare ji ñu naan wax doom nangeen di seet fi ngeen di lekkee mu ne rawati nag fi ngeen di reere mu ne ndax ñam moo xam ne boo ca reeree doo julli fajar hmm? mosuñu ko te dugalu ko ci suñu nopp doom dee leen seet fi ngeen di lekke rawati reer bari na fooy reer dinga nga biddanti doo julli fajar ñam waa tax mu ne ñam wa xaraam biir bu mu fanaan borom du julli fajar kon bari na kuy biddanti na seetaan la muy lekk suñu nopp hmm. ba ca la doon nettali nee na tarbiya bu metti bu ko alaaji Mansour dafa am bés xaaji Mansour bu masaan nopp day ñam wi jox ko taalibe yi ñu barkeelu ci ñëw sukk bokk ak ñoom mu ne la lekk bi mu séen ma ne ma Habib kaay nee ma ñu mu ne di lekkati soo bëggee ceeb bu niin yomb la ëllëg bu lekkati ci sama ndes bàyyil taalibe yi lekk ko hmm. si ñabim ne keroog laa gëj alaaji Mansour lekk mu ne te lekk dara neexu ci mu ne waaye tey la ma du yéene woon yëpp am na ndax tabaarkàlla lépp la defal loolu ci gis nga façon tarbiya bi ko alaaji Mansour teg mu ne foofa rek yëg na fa loo xam ne ci wàllu tarbiya ci digganteem ak magam ju baax ji alxaaji Mansour ak fu mu ko jaarale mhm. bu dutoon alxaaji ak woy juróom du ko mën ci wàllu jaar-jaaram nit kuy nëbb ay mbiram mhm. bëgguloon lu siiw cinq cent mille baatu cinq cent mille ci moom laa ko njëkk a dégg téeméeri junni joxal ma diw cinq cent mille ci jamono boobu joxal ma diw cinq cent mille booba cinq cent mille yombut entre parenthèse sëñ Habib jamono yi ñuy wax diggante Jean Collin ak Habib Thiam pour kii la ñuy def premier ministre kii duñ ko def premier ministre li ma la def mm-hmm. la sëñ Habib si woo turandoom muy Habib bu Mansour mu ngi ko woo treize heures ci bëccëg mi bari na coow de mu ne ko mu ne ko diway nekk premier ministre ak diw du nekk premier ministre bari mu ne ko jëlal dog bi dem fële defal ma ko jox naa ko Habib Thiam ba noppi Habib mm. mu ne ko jox naa ko Habib Thiam ba noppi wax jeey bari rek waaye mooy nekk premier ministre jël dog bi nga defal ma ko fa te dog ba salaatul faati yi la te matut téeméer xamuñ ne jox naa ko Habib Thiam ba noppi mu ne ko ndax du dara Habib ma ko sama bopp. Habib bu Sénégal bu Sénégal. ancien premier ministre bu Sénégal Habib mu ne maa ko uuf tuddee ko sama bopp. xam nga loolu rek cër la. cër la. Habib Thiam bi mu ubbee Soka Soka. Mm-hmm. usine boobu daan defar so ubbee Soka. Eh, daanaka toog na lu yàgg amul nuñ koy waxeeti eh, jëlul comptable xawma ma yooyu ndax bëgg cër bum ci jox sëñ Habib turandoom ba mu mujj def ko chef comptable kon la bi bari na lum li ci réew mi loo xam ne secrètement la ko régler kenn du ko yëg mu ngi ñuy nettali ne mos na tukki dem Abu Abuja Nigéria nee na kilifa buur ba fa ne xam nga ñoom dañuy am buur à part président bokk mu ne buur ba fa nekk yëg ne doomu Seydi Hadji Malick nga fa mu invité ko ngan nee na dem fa gane ji ko ñu waxtaan bay ñibbi nee ci jamono yooyu million jox ko buur ba buur na ma sant ko gërëm ko def ko hmm. mu ne ñi ma àndal ma génn rek ñu daal ci taw li nga joxe ñun soxla nañ ko boo ko soxla wutit ñun soxla nañ ko. juróom fukki milliards juróom fukki milliards boobu nee na mu ne leen ñaara tax ma delloo ko. mosuma yëg ngeen lekk alalu Senghor ñu ne ko waaw mu ne dama bëgg man Habib ma ñàq ko yëg ngeen ne mosuma lekk alalu taalibe mu ne loolu it moo tax ma delloo ko mm-hmm. mu ne te tey su ma ko jëgoon jëloon diggante Niger ak mu ngi mel ni diggante Ndakaaru ak balaa maa àgg mun Senghor dana ma mere ndax nee na mosuma lekk alalam kon bu ñëwee fii jël alalu jàmbur ci gën a yeey mu ne loolu bokk na ci li tax ma delloo ko mm-hmm. bi ci des fasuma yéene dundee lu dul sax taalibe yi mos nañu dajale xàddiya boobit it sëñ Habib turandoom fekk mm-hmm. dajale hàddiya indil ko ko mu ne leen lii la ñu ne ko hàddiya buñ la indiloon pour ziyaare leen ko mu ne man duma xalif du ma sëriñ mm-hmm. taalibe la xalifa baa nga ci Tiwaawan ne quinze millions teg ci ne leen boole leen yóbbu jox ko xalifa bi man eh, loolu koo gis mu di ko def mm-hmm. ak ak ni nit ñi bëggee àddina àddina ak alal fi ne ak daraja mu del loolu ni dem leen ngeen yóbbul ko Abdou ca Tiwaawan mooy xalifa bi mën duma xalifa ziyaara kenn waruma ziyaara taalibe la ni yéen bàyyi leen ma jox leen ma contribution yëkkati 15 millions teg ci ne leen yóbbu leen yéeme la woon ci dund sëñ Habib mii ma lay wax daf ko jege woon na ma bés sëñ Habib mos na ko woo mu ñëw mu ne ko jox ma montre bële muy montre bracelet bu rafet nee mu jox ko ko nee mu xool ne ko dafa mel ni sept de sëñ Abib ne ma xool ne ko waaw sept heures moins vingt cinq la nee na montre bi ne ma jëlal nga yóbbu balaa ñu naan Abib ba ngay gis comme ñëpp dañ ne damaa silmaxa ba xam ah. <laughs> waaw te fekk na boobu waaye teewul wan na ko ne li ngeen di gis maa ngi koy gis kon mooy ma lay wan ne nit ku effacé wu woon la lii def na ko turandoom bii may wax muy sëñ Habib bu sëriñ Mbay Mansour yal na ko yàlla doon mu ngi fii di ma dégg fa tabaarakallaahu moom la ko turandoom jëflanteel waaye jox ma montre bi nekk ci saag bi nee na ma génnee montre bi jox ko mu Habib dafa mel ni du sept heures moins vingt cinq nii la ko waxee de sept heures moins vingt cinq mu jot ne ko waaw mu ne ko jëlal nga ci balaa ñu naan Habib a ngay gis comme ñëpp ne nañ dama silmax macha kon nga xam ne bu dee wàllu wilaay rek li ko ci yàlla may xam-xam xam-xamu zaahir gis nga way wi sayit yëkkati léegi fa baxin baxin kon firi loo rek pour mu firi ko xanaa ci luy bax sax la lay wax boo moytuwut loolu gën a niru ah façon arab yooyu sax doo ko dégg fa baxin baxin te firiwul lu dul kaar kaar waaw kaar kaar boobu alaaji Abdu magam lay woy di ko tagg ci jikko yu rafet yi jikko yi jiital nag kaar kaar xam nga loo bañ a gémmiñu nag da nga naan kaar ñi léegi ñun ci suñu waxin léegi ñoo koy tubaabal naan macha allah mm-hmm. fekk du macha allah boo bañee catu dara danga naan kaar ci baatu la nga ne fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin waaw kañ sëñ Abdu neen dootu ca tabbi Cheikh Alhaaj Abdul Aziz da baax moo ñu ko wax ci dund boo ko wax cat tootu ca tabbi moo tax gis nga woy kawe yi mu ñoom ñëpp ñooy Maodo. waaw koo ci la Seydi Hadj Malick mu toog mu sotti nag ci comportement ci jikko ci dëddu àddina ci effacé wu ci bañ daraja ci bañi taali ami taalibe li yëpp yëpp ñoom dañ ko tegal nit ñi fële itte woowuñ loolu yàlla am sëñ Habib nag ci cadre boobu la newoon ku mënoon dimbale mbokk la ku mënoon dimbale taalibe la gis nga wàllu faj nii rab ak ku seytaane jàpp waaw ku jinne sëdd ci mu ko jële woon ci magam ji xaaji Mansour xaaji Mansour dañ daan yeew nit indi eh, doomaraam te tekki leen ko tekki leen ko jëndal leen ko pom mu lekk wala ñu indi nit yeew mu ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko da ngay fontoo ñi jox leen ko euh, boo amatul léegi wala bu bariwul gazelle gazelle jox leen ko gazelle buñ koy jox gazelle bu koy naan loolu sëñ Habib mos nañ am ko ñu indi ci moom mu ne jëndal leen butéeli gazelle jox ko ñu jënd jox ko te boobu mu ngi mu ngi bëmb gémmiñ gaa ngi génn ay puud mu ne jox leen ko gazelle bi mu naan ñu jox ko gazelle bi mu naan waa ji naan ne cooc waa lu ma indi fii ku ma fi indi mel na mel ni du moom te du ca laaj benn dërëm mu teg loxoom ci sa bopp jàng li muy jàng ne yóbbu bind téere te dégg naa itam ku ku ku yàlla dimbali woon la ci wàllu wërsëg moom la hmm? dégg naa def naa bari woon lool tabaarakallaahu maa ngi dégg alaaj maxtaar jóob di ko wax moom yàlla dimbali woon na ko lool lool lool xam naa kon dafay dellu ci li nga wax ne yi nga xamante ne si yàlla jegal na leen magasinam yi waaw xam nga loola sax ku dégg public bu yàlla hmm, ak a jafe mhm. nit dana nekk ñàkk moom du am tus nga tudd am te bu ko sa loxo laal mhm. noonu la yàlla di jëflanteeg ñoom te bu ko sa loxo laal mhm. mooy séddal ñëpp te bul séddu sëñ Habib li ko may alalam dëgg la ubbeeku ci la bokk moo koy kuy ñaan ubbi ko hmm. daan jënd jëlee Europe di indi ay conteneur di indi ay parfum lu ne la daan indi di jaay moom moo daan voyager boppam hmm. lay sol moom sëñ Habib dafa teel a xam modernisation bii nit ñi di wax tey bii wax daf ko teel a xam moom teel cee jublu moo tax euh, fu ne la daan sa mbir waaw dëppale sa mbir ak jamono moom daf ko teel a def mm-hmm. bu mu jógee Paris ñëw mm-hmm. teg saagam tiwaawoon ñu ne coppet saag ba jamono daf ko teg rek ñu ne coppet saag bi lii may wax ku dëkk tiwaawoon bi nit ñi waxee xam nga lu ma laaj loowu ma ma seet loowu ma dix million yi dem dem te mujj nañ xam ki ko jël waaye dafa ne bu ko kenn def dara waaw mais dafa ne bu ko kenn def dara nañ ko bàyyi wërsëgam la boobu dix hmm. ku gis këram am nga xam ne gàccaaru lu la toll këram gii ci boori RTS boo fa duggee nga xam ne moo ko ñaqal boppam jënd ko kër gërë ca caaro yi tey xaalis bu bari la fa tabaarakallah fi sëñ Moulay nekk seen yaay yal na yàlla fanam hmm. te guddal ko muy soxna Jaynaba fa tabaarakallah kër googu tey rek boo ko estimé woon hmm, jegewul milliard xaalis bu bari hmm. lu ko ko may nangoo ñaq noonu mu ko am na terrain bu nekk ci sama wetu kër goro yi benn terrain mu defoon fa ay mango man daan naa fa dem di sàkki man sama goro yi nekk Tiwaawan sama doom fa nekk tey hmm. ca Tiwaawan jardin sëñ Habib la woon daf ko maye placé la fa tabaarakallaahu sëñ Bay Mansour wax bari na tey ko am alal yaa ngi ko jëlee ci alalu sëñ Habib dalay defal ba pare ne bu ko kenn yëg lu muy def lépp ci kaw sutura la koy def ba ci naa bi ko feebar bi ne tàpp mhm. ñu jël ko boole ko professeur bu Seydi Jamil sëñ Habib professeur Habib mhm. moom lañ ko ko bi muy dem mooy du ma nekk xalifa kon xam na mhm. kon génnewul àddina Sénégal déedéet génnewul àddina senegal yaxya mu ne baaba dem gi sutura la de ndax bu hmm. keroog bi sëñ Habib génnee àddina na li wax mu ne ah dem gi sutura la de bu demuloon ab du dem hmm. loolu nitu yàlla yi kon lam doon wax am na ne duma nekk xalifa mukk ab di dund lim ci def dafa bari nitu yàlla yim dimbale rek nitu yàlla yi yi nga xam ne jaar nañ ci loxoom mu dimbale leen rek kenn xamul nu xam nga dimbalim nitu yàlla moom du xëy na xaalis boo koy jox waaye xëy na leneen wàllu yàlla lay doon tàkk daf lay të mu taal la ba dem yoonam désintérêt sax xam ndax defal na la dara ci yàlla wax naa la digganteem ak sëñ mm-hmm. noonu la ko defee woon ca kër ma jël am na genn góor gu nekk ca booru dimisxa nettali na ma ne ma ne bu kenn yëg ne ñëw na nangam ak nangam ak nangam nee na ma utal ko yëpp indil ko laa bëgg dimbali ci wàllu yàlla waaye bu kenn yëg ne ñëw na fan kenn xamul ne bi ba nga fa mu ne mu ñibbi rek mbiri góor gi tàkk yooyu nag yim ci def kenn xamul nu mu toll te bëggul ku ko xam woon na Tiwaawan maanaam dafa nekk lu bari ak bari gannaaw bi ndax Gàmbi xam nañu yàggoon na fa def Gàmbi ab diir ñëw Tiwaawan af di fa ab diir daan na yàgg euh, diiru li muy nekk ci Tiwaawan zawiya ba lay jullee timis tisbaar tàkku sa fajar wasifa suba wasifa ngoon ak xadaratul juma am na ci boo xam ne dañ mu ne euh, wolof de xamut li mu am dara du def ni kilifa yi di def de mhm. mu ñëw ne faax ca kanam ferañ grand mbubb pour ñu ne yaa diriger yëf yi ca gannaaw lay toog léeg-léeg ca raw di mhm. jàkkaarloog nit ñi désintéressé wu joxoñ la ca wasifa bugg ko nuyu mu ne maag yéen yem ci jàkka ji li leen fi indi moo ma fi indi bu ma kenn da ngeen jaamu si yàlla ma jaamu si yàlla seen waxtu ngeen joxe si seen sama waxtu mujj na koñ ba sëñ Habib di tooy kenn ñemewu fa jaar pour nuyu. rek fermeté la la koy hmm. nga xam ne yow boo xam ne doo dem di ko nuyu te loolu ci ci ci tarbiya la bokk ci yar nit la bokk. dëgg la kilifa la am na cër ci yàlla Seydi Hadji Malick ko jur. li indi ñëpp ci jàkka ji moo ko indi ci jàkka ji. Hmm. gis nga façon modestie. léeg yim daan sol yére yim daan sol bu nekkee Tiwaawan doo foog ne kii sax Seydi moom itam sëñ Habib mii turandoom am menn mag moo xam ne moo ko daan bës bu masaan tëdd noonu ci kaw di ko bës ba mu yàgg moom it mu gis benn tànk rek jàpp ci mu ne ba mu yàgg mu yëg ne tànk bii du tànku sëñ Habib kaw lal bi daj ko mu ne bët set sëñ Habib ne bàyyil tànk boo gis rek bës ko fii ñëpp a fi nekk néeg bi moo fi nekkee ñëpp a fiy nekk ñëpp a fiy nekk bi nag benn la. ñoom ñëpp seen jëfandiku benn mu ne ko néeg bii moo ëpp ji yaa ngi ciy déggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Malik radiyallahu barakallahu Cheikh Ibrahima Aidara waxtaan bi waaye daanaka mi ngi jeex mhm. dañ lay euh, bàyyi fi rihaabi saalihin mhm. ñu joxewaat daje ba yàlla mayaat ñu beneen occasion la gërëm ci ni nga xamante ni noonu la ñu toogee ci sa temps radiyallahu anhu mhm. waaye xam nga waxtaan ci ñoom dafa la ci séentu yàlla ñu ko yàlla boole defal ñu bàyyi la rek nga tàggatu ak auditeurs yi déglu fi raxabis ah, ñu ngi jërëjëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp rawati nag ñaanal yàlla doonte nag suñuy ñaan yeggul fen waaye coono bi ngir nit ñi xam mag ñi nga di ko daj ci mag ñi tisati tisati baatu wolof la nag barke mag ñi te barke mag ñi bu la tisee rek nga am tis ñu ñun ñii di wax tis mboolem koy déglu sukkandiku ci seen leer yi ak seen mbaax yi ba defar suñul biir suñu tey ak suñu ëllëg may ñu diine ju sel ju set wecc yal na ñu ko yàlla defal mooy diine ju set wecc ju raxul dara may ñu tarixa bu gën nit ñi tamit ñu yëg ne mag muñ ciy waxtaane tey sëñ Habib la woon te buñ nee sëñ mm. mooy sëñ Abdou Lahad mooy sëñ Abdou Khadir mm. maamu ndax nitu yàlla yi koo ci jël rek mu wuutu moromam ibrahima alayhi salaatu wasalaam inna ibrahima kaana ummatan xaanita walam yaku min al mushrikina shaakiran li an umi ila siraatin mustaqim benn nit la woon waaye yàlla dafa ne nation la ndax jëf it bu matee lim doon rek ñëpp lay représenté tey ci sëñ Habib yóbbaale na ñëpp yóbbaale na ñaseen yóbbaale na mbusoobe yóbbaale na si yóbbaale na laay yóbbaale na ñëpp oo ci waxtaane rek yóbbaale na ka ca des kon na ñëpp yëg ne sëñ ne wax as lëf ci moom lu tuuti lii ñu jot wax ci moom su jubee mbaaxu yàlla la dëgg nag sama matadi la ak ñàkk xam-xam ak néew kàttan sala wa barakaatuhu barakallahu wa barakaatu kon euh, Serigne Ibrahima dara moom lañ doon waxtaanal noonu ci dund ak jaar-jaar Ibn Cheikh Sidi Hadji Malick radiyallahu ngi ndokkeelaat auditeurs yi ak auditrices yi kon ñu bàyyi la Seyd rek yow itam nga nga yëkkati tëj ci bay jeexal émission bi incha allah kon man nga yëkkati ñu ñaan yàlla daal ci barke Siraaji Malik ak bi fi samaay yonent ba ndawaat di raani xool sëñ ba ak maam waaye yonent ba tat bi lubaani yoo دعيت به بلا الفاشم المجاور بنا بلا شمي ينتهى الأمر كسنين ولقد قضى رب الورى بوفاتي بيجي خير خير خلق الرايمين borom barakaar ba ci tuwaaw ne addal madina xat bakat bi zahiri lakin li baatina sururu li xaadimi ma ñaan li la sërif ñaanal ndaw lu xëy ba yam ci warul wax la raw nga na xoolal sërif Ibrahima Aydara mi waaye xoolal yaa nga xam ne mooy yonent yàlla Muhammad xoolal Muhammadul Mustafa Muhammadul Mustafa bis ba tëri wax seen dégga Muhammadul ku mu saf nga saf moo saf rabbana nan la saf la Muhammad mi kon ku mar doonaan ku dàkk nantu doonaan jinaana xoolama yoon ci Yàlla Muhammad Muhammadul Mustafa Muhammadul Mustafa Imaam Busiri nee na kii mu tu ka xaashidan inantu ba arjurida bi himmaka waa xool yoon ci Yàlla Muhammad al xalaayiqa innani qalban mashuqan laa yonent ba wa bi àq jaay ka inna nii alamu annani annani ahwaaka samrun kala wala kulli qal wara law laa Muhammadul Mustafa tey bu doon yow yaa duleel bëccëg bi du leeral weer wi mën a ko bindal xoolal ma si Muhammad ci lañ bindee lépp mën a ko bindal wa innu is ara abaana lañ amalee abaana lañ feeñalee abaana min musrina ci leer yoon cala muhammad ci lañ tasaa leer yëbul ko bi tasha wa shamsu musriqatun bi nuuri ba ay dërëmi yoon cal muhammad mooy samaam abdoulaye baayam abdul mutalib hashim ay baayam hashim abdul manaf xusay baayam xusay kilaabay baayam kilaab moratay baayam waye baayam lu way xaali bay baayam xaali fiir ta mudrikata ilyas mudarnidar maat ibnu xatim naan ko yon ci yàlla maat mooy kan mooy yaa mustafa min xamin yonan ba wal kawnu lam tufte lam tufte yaru maxlooxu sana aka baadama ala ala iqikal xalaq sayid kon ñu ngi lay ndokkeelaat beneen yoon tabaarakallaahu jërëjëf Chérif Ibrahima auditeurs ak auditrices yi déglu mm, yal na yàlla boole ñu fay fidèle ci ni ngeen di déglu rajo bi di ko topp ci biir Sénégal ak ci bitib Sénégal àgg fu nekk ci àdduna bi actuellement mm-hmm. parce que ci satellite bi lañ ko jaarale ndax loolu rek yaatal la ak mm-hmm. yaatal diine la yaatal lislaam mm-hmm. loolu tax na tey ba àdduna bi yëpp mën ciy jot ndax aw yiw ka dafa war a wesaaroo caay ñi ngi def moyens yu nekk ci seen caay-caay googu di ko wesaare mhm. kon nag pour saare sa yiw yi nga yor mhm. euh, tabarakallah yéen ñi ñu ciy dimbali duñ leen woo ngeen may ñu ñu mën a toog waxtaan jël xam ñëpp ameel nañ leen cant ameel nañ leen ñaan ameel nañ leen ngërëm mhm. kon yàlla yàlla ñi ngi ndokkeel auditeur ak auditrice yëpp fa tabarakallahu kon si ibni cheikh seydi alhaaji malik si mi ngi leen di tàggu ba beneen yoon assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu back, même pas deux